damaa def sama parti dem assemblée mu def partem dem assemblée waaye nag li gën a ëpp xam-xam mooy koo xam ni bu guddee mu ni leen fii la ker gi yam bu naaj wi ne dàng kem gi yam foofu gis nga keroog bañ ne dañ koy jëli laa dem ca moom ni ko gëw ma liñ la wax d'accord ma ci liñ la wax xam naa fi nga jógee xam naa fiñ la yare xam naa éducation bi nga subir liñ la wax defoo ko comploteur bi jógati na kon duñu nangu complot bi jàll lool la ñu bañ loolu la xale yi bañ ba tey ñu daanu kon nag daanu nañ sur le champ l'honneur kon ñu ngi leen di sargal kon du ñu gën a gore looloo tax fii ci Bignona pacte bii Cheikh Tidiane Dièye wax ñun dañoo jàpp ne ab ribot la bu dind suñu deret jaadu woon dinañ dind suñu deret taqal ko ci garab gi jam suñu bopp ci garab gi pour wane ni kenn du war ci lii nga xam ni moom lañu ñu d'accord li ñu d'accord nag moo di kenn ku nekk wala ñu àndandoo ak nu mu mën di demee di nga fexe ba réew mi nekk benn ba réew mi bokk xol ba réew mi àndandoo ñu dëgëral dëgg dëgëral jàmm di waxante lu baax dindi lépp luy een démb lépp luy xaar ma yàlla ci suñu diggante ñaareel ba te engagement la bu ñu jël mooy lépp loo xam ne ci kàddu day yàq diggante di ko yàq ñu teg ko ci diine wala di ko yàq teg ko ci kii fii la dëkk fee la dëkk kii bokkul ak diw loola dinañ ko dindi dinañ ko dàq te ñun ñuy politique ñun la ñëpp di xool kon ñun ñoo war a sàmm loolu ñetteel ba mooy képp koo xam ni jóg na pour xàjjale nit ñi ci kaw diine wala muy xàjjale nit ñi ci botte konte xeet wala muy xàjjale nit ñi parce que kii fii la dëkk kii dëkkul fii kooka dinañ ko bàyyi dinañ ko xàjj ci suñub ànd te dinañ ko xam ne li yàq kii koy yàq ñeenteel ba mooy li nga xam ne moom la ñuy dañ koy soppi de sukkandiku ko ci li nga xam ne mooy nawlonte bu ñu nawlontee dinañ valoriser li nga xam ne mooy suñuy jikko moom lañ ñu bataleel su boobaa ku d'accordul ak nit nañ ko wax ne ko d'accordu ma ci yaram ak teggin waaye doo ko saaga doo ko xas ci fu mu mën a nekk nag ci sa digganteeg moom wala ci réseaux sociaux yi wala ci rajo yi loolu dind nañ ko dañ koy dind ci suñu àndandoo juróomeel ba moo di lii nga xam ne démocratie la ak li nga xam ne mooy justice ak état bi ñu bëgg muy état bu ñëpp bokk état bu réew mi di seddoo état boo xam ni kenn ku ci nekk day jàpp ni yaa ko yëlif kenn rek mënu koo yëlif xañ ko ñu ci des état boobu dinañ ko fi samp am nañ moyen wu samp ko te dinañ ci taxaw juróom-benneel bi moo di nag dañu am warugar ci suñu diggante xale yi te loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy faj ñii nga xam ne daanu nañu ndax ñoom loolu lañ bëggoon boo gisee ñu mer ñu topp ñu que dañoo bëggoon ñun ñu nekk seen exemple exemple boobu dinañ ko jéem a def dinañ fexe ba jeunesse bi ñee seeni leader dinañ fexe ba jeunesse bi ànd ak ñun ànd ak ñun ci jikko yu rafet ànd ak ñun ci koom ànd ak ñun ci lépp li nga xam ni moom mooy defar.